alhamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaa'i wal mursaliin sayyidina muhammadin wa ala aalihi akhrijna min sulumaati lwahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax alayna bi maxrifati alcilmi waxathin axlaaqana bilxilmi wa saxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xazaa'ina raxmatika yaa arxama arraximin yaa rabbal alamin mbokk yi bàyyi xel Sud seen rajo assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi ñu santee suñu boroom subhaanahu wa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 ñoo ngi beral nuyoo jàngkati alxuraan yi di nuyu jàngalekati alxuraan yi ñoo ngi nuyu sëriñ si di nuyu soxna yi niñ ko baaxoo defee mboolem ñi nga xam ne ñu ngi wétali koo jotaay bi ñoo ngi ciy ànd ak ñoom di leen nuyu jël nuyoo yi teg ko ci loxol suñu jigéen docteur Ana Dia di nuyu suñu yaay Ramatulaay Baaji suñu maam Kiné Thiam ak sama mère yooyu nga xam ne ñoom ñëpp xame nañ ñoom ñoom ñoo ngi leen di nuyu nuyoob kóllëre waaye di amaan mbégte ci dellu siwaat ak yéen ci jotaay bi saa su nekk di nuyu suñu jigéen soxna Ana Ndiaye yaayu daara daara Aysa umul muminin bu ñu ngi lay nuyu di nuyu mboolem soxna yi nga xam ne taxawu daara ak liggéeyal lislaam yitteel na leen yal yàlla fay leen suñu e, jigéen suñu sëriñ soxna Ndikke Mbàkke ci la bokk di soxna sëriñ Abdou ñu ngi koy ndokkel bu baax moom itam ñaan màggal gi nga xam ne moom lay amal maamam maam Mariama Sëy borom bi subxanahu wa taala def ci ndam nam ko ci baaxoo defee def ci barke waaye defal ko ci tawféex te ñu àgg ci ak jàmm ñoo ngi la ciy ndokkeel bu baax a baax di ci ndokkeel mboolem soppeek am di jàmm yi ak taalibe yi suñu jotaayu démb bi ma ko yëkkati maa ngi woon ci aj màkka ba agsi woon ci armal noppi woon ci armal nag. mu mel ne bu ñu yàlla yóbboo ak jàmm yàlla nañ ca bokk waxtaan wi day jeex nag ñu bari rek léeg-léeg ñu woo ma ne ma oustaz ban essence ngay àndal ban essence ngay àndal man leen man de xanaa ci bëgg rek laa toll yàlla na ko yàlla dogal waaye maa ngi ñaanal nag sama wëllëre yi ma am yépp nga xamante ne bari naa ci ay xarit lool ñoo xamante ne ñu ngi ci waajtaay yal na yàlla may leen geen àggaleeg seen sago yal na yàlla jàppale ñu ñun tam bañ bokk ci ñi nga xam ne dinañ mën a ñëw ba yéene ji ngeen di xaar ci ñu bokk ci ñu leen di taxawu yàlla may ñu ñu man koo taxawe yàlla baax na bu nit ki armalee ba noppi foofee ci ab yaara ali wala biiru ali wala sul fa ba tànn benn ci aj yi dafa am lu cay topp nag mooy talbiya talbiya mooy labbayka labbayka wu labbayka googu dafa am ay baat yoo xamante ne sunna la ci aj gi kii aji itam dañoo bëgg mu bokk ci muy jàng man ko ba noppi def ko danaa ci ñëw ci jéem la ko teqantalal ak wàccuwaay bi nga xam ne moom la am dañoo jële ci euh, Naafi ibnu Abdullah ibnu amar ci xadis boo xam ne imaam Buxaari ak muslim yépp nettali nañ ko mu ne talbiya bi ti bi alayhi salaatu wasalaam daan def nii la mooy da daan wax labbayk allahumma labbayk labbayka laa sharika laka labbayk inna alhamda wa nicmata laka wal mulk laa sharika lak nee na nii la ko yonent bi daan defe kon nanga nga jàng labbayka waaye baat yi la labbayka allahumma labbayka labbayka laa sharika laka labbayka inna alhamda wan nicmata laka wal mulk laa sharika lak allahu akbar baat yaa ngi noonu baat yu neex baat yu neex loolu abi hurayra indi na beneen xadis boo xam ne ni mu ko waxee noonu la ko ca indee xadis boo xam ne imaam ahmad ibnu maaja ak nasaa yi ñoom ñëpp noonu lañ ko nettalee labbayka kon ay baat la yoo xam ne dañoo bëgg nit ki di ko wax muy talbiya dañ koo sopp dañoo sopp ci góor mu yëkkati kàddoom bu koy def mu koy wax ca kaw maanaam waxuma ngàlleeku de maanaam mu koy wax ba mu kawee bu dee jigéen nag euh, bëggewuñ ko noonu moom dañoo bëgg mu di ko wax ci suuf ba nga xam ne moom rek mooy dégg li muy wax moo tax léeg ñu nekk ci biir kaar yi nga gis jigéen ju ñëw taxaw ci kanam ne day dëbbee la bayka gi ma ne ko ah loolu mat naa xoolaat gidd bu jigéen moom mën naa doonub gidd waaye nag na am góor ñu ne ca kaar ba ndax amul kaar bu ñu ber jigéen ñi kese ñaare euh, buñ taxawal kaar bi itam góor ñi gaaw góor yéeg jigéen yéeg ñu dendandoo déedéet nañ bàyyi jigéen ñi ñu yéeg wala ñu bàyyi góor ñi yéeg jigéen ñi yéeg féete ca gannaaw ne bu ñu julli góor ñi yéeg bu ko defee nag kay labbay kaw di labbay kaw ña ca topp di ca topp bu fekkee dañ cay topp waaye jigéen moom du dëbbe ak labbay ka du ko dëbbe ca kaw bu dee jigéenu neen nañ ko jàng ba man ko kenn ku ne di labbay kaw ni mu ko mën a dégge moom moo tax ñun suñu njaxas ci aj gi kenn xamu nu mu toll maa ko gis kaar bu aw góor nekk aku jigéen jenn ji jigéen jenn jigéen ci organisat maanaam tiris yi ñi ñiy organiser wala ku ne ab gidd la léeg-léeg mu ne la wet ñëw taxaw ca kanam fas yéene jiite la bayka ga ma ne ko xër nga nag xër nga lool waaye da ci am yoo xam ne nag yàlla daa bëgg mu jigéene ak yoo xam ne daa bëgg mu góore la bayka dañoo sopp lu ñu sopp la ci góor mu yëkkati kàddoom waaye doona nisaay jigéen ñi nag dañoo bëgg ñu wàccee seen kàddu moo tax eh, xadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi day wax ne ataani jibril fa amara nii an umira asxaabi an yarfa'u aswaatahum bil ihlaali wa talbiya mu ne jibril day daf ma dikkal xamal ma ne sama borom nee na naa digal sama àndandoo yi ñu yëkkati seen baat yi ci bu ñuy tudd yàlla ak bu ñuy talbiya Euh, ñu ne talbiya kon dañoo bëgg góor ñu yëkkati seen kàddu waaye jigéen ñi nag moom nañu suufeel seen kàddu dégg nga jigéen na suufeel kàddoom di ko waxee rek noo xamante ne dañ koy moom mën na koo dégg man nga koo wax yow dong kenn mën naa ji dëbbe it di ko wax ñu koy aw léeg-léeg loolu day am buñ paree ab yaara ali ba armal ba noppi ba dugg ci kaar bi rek ñaari kaar yi dana am micro wala bu ko amut kenn ci ñi ci nekk ci encadreur yi wala guide religieux yi dana tàmbali fàttali nit ñi ne leen nañ bàyyi waxtaan wi ak waxi mboosóor yi ak yi ci bokkul ndax aj gi tàmbali na ndax fi mu ne armal nga dugg nga ci aj gi moo tax ba nga nekkee madina yëpp la bay ko woowoon yaa ngi woon ci say ziar sañoon ngaa sol lu ñaw yow mi góor sañoon ngaa sañoon ngaa tey nag dangaa armal jigéen ñi itam dañoo armal ca seen col gañ col bokk dugg ci kaar yi discours bi daa war a sensé léegi waxtaan widaa daa war a moo tax kenn ne ci kanam léeg-léeg naan labbayk allahumma labbayk gaa yi di aw mu naan labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak allahu akbar bu ko defee ñu nekk ca rek labbayk allahumma labbayk labbayka laa sharika laka labbayk inna alhamda wannicmata laka walmulk laa sharika lak noonu lañ koy jàppoo léeg kenn di wax nit ñi di aw boo sonnee man nga noppi boo gëmmentoo nga nelaw waaye boo yeewoo nekkaat ca diggante Màkka ak Madina ba ba diirub biñ war a talbiya di jeex danaa ci ñëw ci kañ lay tàmbali ak kañ lay jeex waaw soxla soxlawul na nga ñëw rek am na noo koy songee doo ci génn <laughs> maak Oustaz Alioune Mbaye ca kaar ba dañoo dugg rek ak suñu sëfooru égyptien ba Oustaz Mbaye tàmbali ndeysaan ca fitna jaak xaal ji rek songu yëf yi ma di ko teeyal di benn bennal mu tàpp tàppal ma comme daf ma yeb ne ma da nga dut da nga dut ca kaw laa la wax naar bi xam ne sawaay lima li ma lay xuloo mu tàpp tàppal ko ne ko xaaj Oustaz <laughs> Mbaye xool ko mu ne ko mahlan <laughs> ne ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam as-safaru qit'atun min al-azab ne ko yonent bi nee na tukki aw dogit la ci mbugal comme Oustaz Mbaye daa tàng mu ne waaj waay dimbali ma waaye nga naan ma tukki nangam <laughs> waaye mujj na ba kee génn diggante màkk bu midin rek mënu koo nelaw ci kaar bi moom daal fu mu la baykaa ba teg micro bi rek naar bi tàpp tàppal ko ne ko ayca ayca yaa ko tàmbali woon ak doole continuer waaye labbayka bi diggante Makka ak Madina euh, noonu lañ koy defee wéyal ko itam ba ca àpp ba nga xam ne moom la war a jeex bëgg nañ ki nga xam ne day labbayka it euh, muy ñaan muy ñaan gannaaw bi nga labbaykaa ba noppi saa yoo defee ba sonn bay bëgg a arrêté bëgg a nelaw wala dara nga julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaanal sa bopp ñaanal say mbokk waaw ñaanal sa bopp ñaanal ñi nga bëgg ñaanal ñëpp lépp lu la soop ci mbiri àdduna lépp lu la soob ci mbiri àdduna ak nga ñaan ko labbayka baadi li muy tekki mooy wuy si naa la wuy naa la maanaam woote bii di aj nga xam ne yàlla moo ko wooteloo ndawam lu tudd Ibrahima alayhi salaam Ibrahima mooy acteur u euh, film bii di aj mooy acteur bu mag bi àndoon ci ak beneen acteur bu euh, xam ne doomam la di Ismaila ak jabaram ju tudd ñoom ñetti ñii da Ibrahima jële Haajara ca fañ dëkkoon indi ko Makka bàyyi ko fa ak doomam ju ndaw ju tudd Ismaila ca xurwa foofe mu ko bàyyi woon fala sam-sam ball diggante boobee Haajara doon jaabante mooy diggante Safa ak Marwa néeg bii di Kaaba gi fala yàlla joxe ndigal ngir ñu yëkkatil ko ko gannaaw ba nga xamante ne wax nañ ne malaayika yi fondement woon nañ ko ca diir ba sooboon borom bi subhaanahu wa taala yàlla ni Ibrahima ba mu tabaxee kaaba gi ba noppi ne ko wooteel Ibrahima ne ko ñu may woo fii kenn nekku fi yàlla ne ko wooteel woote bi maa koy jottali may dogalit ak xéewalal ñi nga xam ne ñoo lay wuy si wa addin fi nnaasi bil xajji yatuuka rijaala wa ala kulli daamirin yatiina min kulli fajjin amiq li yashhadu manafia lahum yow nag yàlla dogal saan nga bokk ci ñi nga xam ne wuy si nañ mbokk yi xéewalu yàllaa ngi noonu gu moo tax euh, du tukki tourisme du tukki touriste dong waaye tukki jaamu yàlla la tukki wuy ji woote bi yàlla bi la bi nga agsee nag ba armal ba noppi nga ne ko yàlla wuy si naa la wuy si naa la ñëw nga ci dëkk boo xam ne mën naa am say wayjur ñëwuñ fi yaa ngi nii ñëw sa baay lim doon baax baax boo demee ñëwut ndeysaan am nga yaay yoo xam ne niñ baaxee woon di góorgóorlu waaye boo demee ñëwuñu am maam yu baax yu bëgg yonent bi lu na ñu defal ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam góorgóorlu ba tàyyi waaye ñëwuñu ñëwuñu sëñ Tuubaa mu baax mi nga xam ne daa mujjoon soppiwu turam tudde ko xaadimu rasul ndax bëgg gum bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam da wax sax naan sama bakkan daf may yedd ba may jàpp ne sax bàkkaar la ci li ma demul Madina tiim yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem ba naan sama yaram dey gàllankooru na ndax digganteem ak tubaab bee ci xew waaye sama xol moom du dañ mukk di la siyaare yow yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yow nag nga ñëw taxaw tey bokk ci ñi nga xamante ne ñëw nañ wuy si woote bi léeg-léeg nga war a laaj sa bopp ay laaj yu bari lan laa defal yàlla ba mu boole ci groupe bi lan laa defal yàlla ba mu boole ma ci ñi nga xam ne ñëw nañ àcc foofu rek la defaru gi tàmbalee maanaam yëg-yëg bi ngay am rek yëg bu rëy la ñaata nit nga bàyyi senegal hmm. ndax dangaa gën a jàmbaare moo tax nga ñëw ndax dangaa gën a bëgg diine moo tax nga ñëw wala ndogalub yàlla la akub wooteem aha kay dogalub yàlla la akub wooteem kii la bayka bu naan yàlla wuy si naa la loolu lay yëg day yëg ne ñëw naa wuy si moo tax na xam li muy def si mooy lan bu wàccaay wi jaaree yoon alal jim aje doon alal ju lew euh, yi war a daje yëpp daje bu ne wuy si naa la suñ borom dalal ko ubbil ko ay buntam waaw ubbil ko ay buntam tàpp tàppal ko dalal ko ndax ganu yàlla sax lañ leen di wooyee foofu waaw rahman su fekkee nag dafa ñëwee alale aje alal joo xam ne dafa xaraam wala yoo xamante ne nii bokku teeñ waroon a waaje ngir ñëw fa bu ne wuy si naa la suñ borom ne ko ku la fi woo laa labbayka wala saadayka kon labbayka loolu lay tekki yàlla wuy si naa la waaye nga ne ko yàlla wuy si naa la te duma la bokkaale du ma la bokkaale kenn kenn kenn kenn du ma la bokkaale yow yow rek yaa yaa ma jaral lii allahu akbar yaa ma jaral summi sama yére yi woddu armal ndax bëgg a am sa ngërëm ndax bëgg a am sa ngërëm xam nga tey yi gën a nuru euh, bokkaale ci jëf yi aj màkka bu fekkonte ne du li ko sariya yoonal ndax aw doj ngay wër di fori xeer di sànni di daw di yéeg ci ay montagne ak yu demee noonu yooyu tey ku ñëwoon def ko fii mënta tudd jaamu yàlla mënta tudd ak jaamu yàlla wala sax ab dof lañ lay jàppee boo muyut ñu woo sàppoor waaye bu ko nit defee ca amaakinul muxaddasa wala ca place bu tedd boobee di makkatal mukarram ca aj ga mu tudd ak jaamu yàlla nga ne yàlla na duma la bokkaale kenn cant ak xéewal yaa ko moom ak pouvoir yàlla duma la bokkaale kenn boo xoolee wax nga ko ñaari yoon ne ko laa sharika lak mooy labbayka allahumma labbayk labbayka laa sharika laka labbayk inna alhamda wannicmata laka walmulk laa sharika lak allahu akbar mi ngokk mo tax baat yooyu loolu lay tekki doon loo xam ne bu ci nit ki noppee bëgg nañ nag mu julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaanal boppam ñaanal boppam noppi googu tegtale ne bu labbayka gi jeexee waaye labbayka gi diir bu gudd la ndax du diggante Makka ak Madina dong nga ko war a def waaye boo defee ba sonn bàyyi euh, booy bàyyi man ngaa ñaan léeg bu wuyu téléphone léeg-léeg nga noppalu léeg nga waxtaan waxtaanu farata euh, daal di tàmbaliwaat boo naree dugg ci caaxaan dal wala kenn dugal la ci nanga bañ na bañ ndax labbayka ñaan la labbayka dañuy wax ne ñaan la moo tax sax ñi wax ne deesu ci yëkkati kàddu ba mel ne ku ngàlleeku dañ ne fa talbiyatu duaa wa rafu sawti jiddan bi duaa i makru ñu ne ñaan yëkkati sa kàddu ba mu foor lool dañ koo sip dañ koo sib waaye yëkkati sa kàddu ci bi ngay eh, def bi ngay talbiyow bi ngay labbay kaw luñu soppule ci góor bu dee jigéen moom soppuñ ko ci bu dee jigéen soppuñ ci moom mu yëkkati kàddoom bi muy def labbayka waaye dañoo bëgg rek bal tasma nafsaha mu waxe ko waxin woo xam ne moom ci boppam rek dana ko dégg noonu la ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee ci xadiisu ibnu omar bi nga xam ne al bayaqi nettali na ko kon jigéen day suufeel kàddoom ñi ne nag euh, su fekkee yëkkati na kàddoom su fekkee yëkkati na kàddoom lam def aramut ndax kàddu ga du araam waaye def na luñ sib maanaam la gënoon mooy mu wax ko ca suuf la gënoon mooy wax ko ca suuf kon ñi xër ba di ko wax xëy na def nga doonul lu araam waaye lu ñu sib la li gën daal mooy jigéen labbayka labbayka bu yem ci moom defal loolu ndax li gën a gën foofu moom kuy dugg ci luñ sib lee nga dugg ci lu araam sopp nañ kuy labbayka wu mu ñaan ginnaaw bi mu euh, labbayka woo wala ci biir bu ko neexee mu ñaanal boppam ñaanal ku ko neex lu ko soob ci mbiri àdduna ak àllaaxira bëgg na nit kuy ñaan nga tàmbulee sag ñaan ci sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga tàmbulee sag ñaan ci sant yàlla subhaanahu wa taala waaye julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan moom loolu daa bokk ci bu doon lettre booy bind léegi ñu sa lettre bi ndax am nga papier defe naa loolu la ñuy wax nga xamante ne day am euh, day am tampon am signature ñaan gu jëm ci borom bi subhaanahu wa taala daa war a am sant yàlla ak julli ci yonent bi julli ci yonent bi mooy mooy mooy café bi mooy tampon bi nga xam ne bu accès lettre boobu maanaam réception bi jël ko xaw ma nu ñu koy waxee noonu waaye daal ñu jël ko jël goo xamante ne jël gu jëlug lu ñu nangu lañ doon xataa yakuna du'aa'uhu maqbul bu boobaa loolu mën naa tax ñaanam gi doon ñaan goo xam ne dañ koy nangu kon yow mi ñaan ca aj ga ak lu dul aj ga del bàyyi xel di tëjee ak ñaan ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ngay dégg léeg-léeg bu ñuy jeexal ñaan naan subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun waaye luñ cay teg wasalaamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin yaa ngi julli ci yonent yépp alal mursalin waaye nga jeexale ko sant borom bi subhaanahu wa taala mën naa bokk ca secret ya taxoon ko daan def bëgg nañ lool kii def talbiya mu baril ko nga baril looy looy labbay kaw waxuñu nga yuuxu ba sa baat bi dee wala nga gaaw a sonn waaye na bari na bari loo koy def ci mboolem waxtu yi amul waxtu wuñ naan waxtu wi kenn du ci talbiya talbiya mooy labbayka dégg nga mooy labbay kaw rawatina waxtu njël yi waxtu njël moo tax bul dem ba màkk di biddanti bul dem ba màkk di biddanti de am na ñoo xamante ne déclenche de oreille bi ak niñ ko tàmmee woon mën naa am ñu bañ a nelaw ndax réew la moo xamante ne nii fanaanee xoole yomb na fa lool ndax nim bindoo ak yu bari waaye na nga góorgóorlu baloo xoole xoole xoole muy guddi muy ba bëccëg waxtu julli yi na nga ci bàyyi xel di ko julli ca waxtu wa te di ko jullee ca jullikaay ba ndax loolu daa bokk ci yiw yi na waxtu wu njël maa gis ñoo xam ne dañuy dem ba Màkka nelaw ba 9h door a julli ji suba door a julli maa ko gis nañ ma baal waaye maa gis ñoo xam ne it daanuñu mën a yeewu senegal fajar dem màkk jaayante ko ba jaayante lañ koy wax ah booy dama koy jaayante waaw deema yee <laughs> sama waa ji damay bañ a tudd turam buy tëdd ci néeg ba ca màkk mooy réglé montre bi ndeysaan daan ne gars yi réglé naa montre bi ah waaye montre bi moo ñu yee ñun ñëpp waaye moom du ko yee moom daal foo ko yee mu fuddutuwaat rek comme néeg bi ñun ñëppay bokk toilette bi euh, bu ñëpp noppee nga koy yee ko sa waay jógal mu daal di fuddutu nga julli ji boo ñëwaatee fekk mu tëdd bu neuf heures nag ba mu yeewu nag da lay yeewaat waaye xam nga lu mu lay yeewaatee neuf mooy astafurlah laa ilaha illa ay waa jële biddanti naa waay sët seytaane bari doole waay bu subaa nag <laughs> bu ñëpp tëddaatee nga nekkaat ci téléphone bi ndax euh, day guddi foofa léeg-léeg te fekk na senegal guddee guddeegut lool am ñoo xam ne ña ngi ca WhatsApp ba ñoo seeni waa kër ñenn ñaa ngi ca ba ñenn ñaa ngi ci YouTube bi li may wax nii maa gis de wallaay maa ko gis yàlla xam na ko lañ waxoon waaje ne ko euh, waaje ne dëkk sàngam am na baar kii ko amut baar kenn ñëw di leen àtte ni leen booy lu ngeen wax mu ne ko dama ko ne dëkk sàngam am na baar mu ne ko amut baar mu ne ko man mi maa fa mandee waaye man mi it de li may wax nii maa ko dund maa ko fekkee maa fekkee ñoo xam ne dañuy fanaane xoole ba ba ba mu jiggi dayoo bu ko defee yeewu njël jafe leen danaa ci ñëw ci biir aj geeg yenn melokaan yi waaye talbiya moom dañoo bëgg nit ki di ko def ci waxtu wu ne rawatina ci waxtu wu njël te mooy xaaj bi mujj ci guddi gi boo yéeg fu kawee bëgg nañ lool nga tàmbaliwaat koo wax maanaam tey bu doon ne oto bi day jaar foo xam daa montagne nga yëg ni mi ngi yéeg wala muy dugg ci tunnel même bu fekkoon da ngay nelaw boo yeewoo rek na nga tàmbali wax loolu bu fekkee da ngeen di daje doon mbooloo maanaam di dox ba mu yàgg ngeen dajeeg beneen groupe na nga tàmbali Eh, di labbay kaw waat ndax daa bokk ci li nga xam ne day féexal ab xol moom labbay ka ba noppi itam daa bokk ci li nga xam ne day tasaare ay xéewal gannaaw jullik farata it nanga nga labbay kaw maanaam saa yoo julee farata ba noppi na ko wax doonte ñetti yoon la wala ñeent door a jóge fa nga doon jullee yi may wax nii nag yëpp yu ñu sopp la boo ko defut wàññiw dara ndax ñu baree bari ci aj la ñu jël benn affaire def ko lu mënta ñàkk ba réeroo ci ak seeni gidd waaye lu ñu sopp la bu mu tax nga ne diw defu ko kon moom nangam waaye lu ñu sopp la diir bi nga xam ne moom la ñu la bayka day tàmbulee ci waxtu wi nga armale mooy fi ñu tolloon nii bi nga armalee ngir aji bi nga armalee ba war a dugg ca kaar ba war a départ fa lay tàmbulee ca saasa boo armalee rek tàmbulee la la bayka wu moom boo julee ñaari rakka euh, tànn aj gi ngay aj ñu wax la ni nga yéenee nga yéene la ca topp rek mooy tàmbulee la bayka labbayk allahumma labbayk na riir a riir waaw la sharika laka labbayk xol yi na tooy inna alhamda wa nicmata laka wal la sharika lak waaw kay loolu nag amatul waxtu wum war a dakk lu dul ngant tax ba ba ngay sànni ji jamra waaw ba ba ngay sànni ji jamra jamra bu ju njëkk ja xam nga yaa ngi koy sànni ca bisu tabaski ca ngay sànni Eh, jamra ju njëkk ja te mooy jamra ju mag ja ngay sànni moom dong bis boobee ca la labbayka wa war a jeexe la ca def nag nekk nag ay allahu akbar laa ilaha illallah ndax bisu tabaski bi léegi léegi léegi léegi bàkk wi day sensé la ko jiitu labbayka nga doon wax tey nag moom allahu akbaru kabira ngay wax walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila allahu akbar walillahi alhamd